Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokk àdduna salaamaaleykum Euh, di delluwaat di gën a amaat mbégte gu wér wér wér wér wér di gën a delluwaat tamit di ñaanaat jàmm yal na saxaat ci mbiru réew waaw ki ngeen gis nii nag xam naa ne nag depuis màggal gi ba léegi yéen a ko doon laaj fan la sëñ bi fan la sëñ bi nekk sëñ Cheikh Ndiaye njëre njëre mi nga xamante ni kenn dootu ko laam-laame ci mim réew dëkk ci dëkk bi nga xamante ni mooy dëkk waa njëre njëre yi mu nekk fa kilifa gu mag kilifa goo xamante ni kenn dootu ko laam-laame ci ay diir am na lu mu jotoon wax ci réew mi ñu teg ci suñu bët ay diir mu amoon ay bagages yoo xamante ni da ko jëloon jegleen ko ay nit nit ñooñu taxaw di ko sant di ko gërëm bari na ci mbir yoo xamante ni da cee nekk waaye nag comme que dañ ko loqatiwaat bettaat ko ci biir këram fekk ko tey mu nekk ci biir këram mais tey jii dafa am mbubb boo xam ne tey da ko yëkkati sol ko tey muy mbub mu xonk cur jël kaala gu weex ga teg ko ca téye kurus ga yëkkati mbaxanaam sol ko balaa boobu nag dama koy bàyyi mu nuyoo sëñ Cheikh Ndiaye njëre njëre ñu ngi lay nuyu di la sant di la taatanal di la nuyuwaat di la gën a santaat bu baax a baax ak mbétt gi ñu amaat di jàkkaarloowaat ak yow. di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim wal asri inna linsaana la fi xusrin illa lazina aamanu wa xamilu saalihaati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabri ginnaaw bi ñu sante yàlla julti yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou mu yàgg lool ànd ak wér di ñaanal mbokk taalibe yëpp di ñaanal mbokk Sénégal yëpp képp ku ne ashadu an laa ilaaha illa wa ashadu anna muhammadan rasulullah ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool ànd wér di mbokk bitim réew yëpp di leen ñaanal ñoom tamit ñu am jàmm ànd ak wér di ñaanal laat xelfa sonoro yi nekk Sénégal yëpp ñu yàgg fi lool ànd ak wér di ñaanal laat euh, seen Abdourahmane Mbacke bu daaru Moussi di koy ñaanal yàlla suñu borom yokk ay leeram taas ci barkeem te gëm naa ne suñu borom dana nangu sama ñaan gi te def loolu euh, ku baax la woon nitu diine la woon borom xam-xam la woon borom daara alxuraan la woon waaw kon sëñ Abdou Rahmane ku ma ku ma ku ma ku ma ku ma doon roytu moom la mu nekkoon sama idool waaw ku ma ma bëggoon ko trop nag ma yàgg faa dem ti ti daaraam dafay saako xam-xam waaw kon nag maa ngi koy ñaan yàlla sunu moom yokk ay leeram taas ñu ti barkeem ti wàkk inte bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ki nga xam ne mooy sama buntu ti sin daarox sa Njaay de si Abdou Khader di koy ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér waaw ndax moom ku ma ma xam rek xam ma ti sin daaro san Njaay ndax lépp sa lépp sin li sama lépp sin san la waaw nama ka daan waxee rek sama diggante sin daaro sa Njaay ñaari nit ñoo ñaari nit ñoo dox sama diggante ak moom te muy te muy sama samay waajuru góor ak sama maam ñoo dox sama diggante sin daaro san kon nag man ku ma xam xam ma njare njare ku ma xam xam ma ti sëtub sin daaro Njaay waaw ndax lu mu am rek sama maam la te muy sin daaro Njaay maa ngi ñaan yàlla suñu yokk ay leeram tax ñu ci barke maa ngi ñaanalaat tamit sama mbokki Baay Faal yi te tamit buntu ti kër maam Saliou Fall waaw tax damaa bokk damaa bokkaat foofa ndax maam Jee Fall borom Daaru Xafoor euh, dooy moo jur sama papa kon nag maam Saliou Fall sama maam la maa ngi nuyu sama mbokki Baay Faal yëpp ñoom tamit bàyyiwuma leen di leen ñaan lool ñu yàgg fi lool ànd ak wér di waxan mbokk taalibe yi yëpp ñu teewlu waxtaan te duglu ko xam ne ku ko duglu rek da nga si gis njariñ bisimilah. alhamdulilah yéen a ko dégg ba ñu gannaaw yàlla ba ñu amaatee mbégte ba sëñ Cheikh Ndiaye njëre njëre bi nga xamante ni taataan nañ ko te nuyoon na yéen a dégg ni mu nuyoo sëñ Cheikh Ndiaye njëre njëre coow li nga xamante ni jot na am ci réew mi buntu xataal yi nga xamante ni ñu bari daan nañ ko dégg ci réew mi nga yëkkati woon ay kàddu daan ne jàmm day am jàmm day am jàmm day am nga wax ko ñetti yoon mu nekk ñetti fan teguñ ci ay diir ñu jóge ci màggal Touba jàmm am ci réew mi maanaam sëñ Cheikh Ndiaye njëriñ njëriñ nan la def ba coow lu bari nga daan toog di ko dégg ci réew mi mu dem ba ci biir daan ne kat lii maa la ko wax te boo ñëwaatee coow la dana sedd am na loo xam ne bëgguma cee sori mooy li nga xamante ne jot na fi am ci ginnaaw waaw soo déggee yu mel noonu ma waxoon ko te ginnaaw bi ma ko waxee digle woon naa sa ay sarax te naa ay sarax du ne ñëpp nga ko mën a wax nga def ko waaye ñàkkul ne ñëpp nga ko mën a wax tamit ñoom mën nañ kaa def waaw loolu nag bi ma ko defee ñaanti yàlla suñu borom. ndax li olof njaay naan kuy njiit laaj kuy kuy kuy kuy kuy jiite sangu da nga see da ngay sa bopp kuy digle sangu da nga see njëkke sa bopp man nag ba ma génn ba ma diglee sarax yooyu def naa ko am na yu ma fa def sama bopp def naa sa ay ñaan waaw te olof njaay nga nekk nag nga nekk ti gaal gi ñaan gaal gi mucc xam ne su gaal gi daanoo rek yow yow yow doo sa mucc kon nag foofu laa foofu laa jàpp ba nga xam ne la ma warloo ti ti Sénégal man dama dama koy def dama saxaar kenn lépp lu gis ti dëkk bi xam ne luy lorale ak safaan wa ci kàttanu yàlla sun borom naa sa def ay ñaan ba ba fi ñu toll nii te loolu nag laa sukkandiku ba yàlla sun borom la la waroon a ñëw sun borom teg teg na ko waaye saa bi nag mi xaw a jox joxasuwaa dafa mën saa bi dëkk bi euh, kenn xamulum doon daal salte na torop torop torop nan gën a rafetaay toogaay te ñu gën a rafetal xol yi di yéeneente jàmm xam ne lu dul jàmmu rek jàmm ko gën. la moo tax yéen ñi nga xam ne yàlla suñu borom da leen may xam-xam lu ngeen wax te sama Sénégalais ñu bari ma damay jàpp ni du ñu dégg wala seen i nopp dañ koy fat wala seen i bët dañuy tax gis taxaw gis benn affaire ku ci mel ni yow mi xam ne sa jëmm loo mus a wax ak loo xamante ne mos nga koo dëkkal gars yi buñ toogaatee ba ci suba dañ gis résultat daan na seen Cheikh na ko te ne woon na lii am na. bu loolu weesoo dafa am ñoo xamante ne bi ci suuf nee nañ dañ la wër ba sonn. mënuñu la gis fenn parce que da nga làqate woon numéro téléphone yaa ngi noonu moo nekk 78 475 27 82 beneen bi ci des moo di 77 460 47 36 ma bantuwaat numéro bi 78 475 27 82 bi ci des mooy 77 460 47 36 soxna Ndiaye Ndiaye dafa am ay diir yoo xamante ni dafa am feebar yoo xam ne da na a daloon lu ci mel ni ay hémorroïdes soxna Ndiaye Ndiaye Ndiaye yàlla su borom may ko ci xam-xam bu rëy fi mu jaar ak ñooñu te du fan wala mu ñaari fan soxna Ndiaye Ndiaye Ndiaye. kite ak yow ne la am nga jàmm am nga salaam xam-xam bu wér boobu noonu noonu noon naka nga def ba gëstu ba am ci njëriñ boo xamante ni kooku docteur rek ak képp gox xam ne jëflante nga ak moom rek mu gis sa njëriñ. waaw murid moom wax dëgg yàlla nekk na ti li nga xam ne yàlla suñu borom mi ngi ma siy dimbali dama si defal aw tawfeex ba garab gi ma gi ma jot yor ni képp ku ma jox rek yàlla suñu borom ti yàlla suñu borom dana dana dana la taneel waaw dafa nekk loo xam ne dafa nekk lu jafe. nekk na loo xam ne lu naqaree dindi ti nit ki la waaw man nag damaa damaa dox ba soono damaa def gëstu ba ma demee ba dajeeg moom nag ba tërbiwu ko ba am ko garab gi ba am ko am bu wér laa ko ñemee publier siiwal ko di koy di koy joxe waaye kaat na yàlla soon borom garab gi ku ma ko jox nga tane loolu moom leer na ma naa ñi bu dee bu dee bu dee ëmrit bu génn bi ak bu ak bu génnut bi moo xam sa yaram bi ruux di tàng sa yaram bi sa yaram bi xasan mu jàpp ndigg li ëmri bi man ëmri bi mën na kaa faj bu dee bu dee ndoxum siti bi sax gar jurul ma lay jox garab ndoxum siti ëmri bi laa lay jox mu tane ëmri bi maa faj ñu baree baree baree bari bari maa ngi ñu baree bari laa la wax garab képp ku ma ko jox garab gi mën na laa faj waaw ba si ba si ba si semaine bi jaar rek am na ku ma si faj koo xam ne moom dafa jàpp ne mun ma kaa faj wax na ma nee na fu ne na fa hôpital fu na fa mu ne ma mun ma kaa diin depuis may am ñeent fan la la ma la ma wax garab garab gi baax na mi ngi koy faj day saa bi waxtu ma waxee ëmri la ne la may wax waaw garab gi moom di kàttan yàlla suñu borom képp ku ma ko jox moom da da da da nga tane waaw loolu moom leer na ma naa ñi moom waaw sum àdduna ba àdduna bi fii Sénégal ba Sénégal daj garab gi may joxe ni di di faj amari gisuma ku ma ko fi dàq waaw li mën maa ko wax ah parce que ñu bari wax nañ ko ñu ci bari jëflante nga ak ñoom te chaque jour képp koo xam ne damay toog man léeg-léeg damay toog sa sama téléphone sonné daane sëñ seen njaay njëriñ dara kat la war fu nekk gisuñu ko dégguñu ko waaye dañoo bëgg ngir mu jàppale ñu parce que xam-xam bi mu yor xam-xam bu wér la te day jàppale nit ñi am na ñoo xamante nag ay borom kër lañ ñi nga xamante ne benn feebar da leen di dal te feebar boobu dégg naa ñu ne yàlla suñu borom lu la ci may la mu nekk wàllum ngóora wàllum ngóora dafa yàq kër yu bari wàllum ngóora dafa tax léegi sa yi bari tas mais sa seen njaay njëre njëre xam-xam bu wér gi nga xamante ni da koo jël indi koo takk ko ngir di jàppale kër yi sa seen njaay njëre naka la def tey ji ba jëflante ko garab googu ba mu mën ko ba tax tey comme si jëflante kooku waaw garabu ngóor tamit nekk na te nga xam ne isa bokk na feebar yi nga xam ne gën ñoo sonal nit ñi waaw nax nit ñi léegi ñu su bari daanaka wérutun sitim lekk yi ñu su bari moo leen moo leen arrivé ba xam ne seen seen seen seen seen temps maam li leen war may seen doole du du du duñ sa jot am ñoo xamante ni foo mu bari moo leen moo seenu ndaw yooyu yëpp fu mu toll nii xeeti ngóor yoo xam ne maam nit ñi dañ koy jooytu fu mu toll. yoo tamit yor nañ si garab goo xam ne sunguf boo xam ne alxuraan karim lañ ko composé te kàttan yàlla sun borom traitement lay doon ku ñu ko jox ku ne maam dana fonctionné te yow ba danga ko amee li nga ko bëggee ba sa kër neex ba nga xam ne dootoo dootoo dootoo jooti wàllum ngóor a waaw tamit ñi ngi si joxe nit ñu baree bari ñi si ñi si yëg seen bopp waaw ndax euh, kër moom euh, xaas baax na trop waaye ngóor tamit sa sa la bokk bokk na li nga xam ne moo moo gën a baax ti kër waaw beneen bi si topp tamit euh, li nga xam ne mooy wàllum diggante góor ak jigéen wàllum nopp loolu tamit ñu ngi si ñu ngi siy yëngu yëngu bu gaaw a gaaw sax waaw bu gën a gaaw a gaaw doonoon si yëngu waaye isaam li ñu si yëngoo dafa dafa gën a gaaw waaw liñ si liñ si liggéey nii eh, du du taxaw du liggéey yoo xam ne am day day taxaw irsa lay doon waaw ndax eh, wàllum bëgg moom fi leen koy fekk fi leen koy bàyyi ndax eh, yàlla suñu borom dafa wax ne wala xadd karam naa ngir baane aadama waaw moom bëggante leen te yàlla tax waaw bëgg bëgg nag moom lépp la waaw moo xam lépp looy bëgg rek maam lépp loo xam ne da saa bëgg te sa xor rek dan dan kay nopp te nopp nag suñ ko waxee nopp du diggante góor a jigéen rek la ñu nopp déedéet nopp dafa bari façon yaa xam li nga bëgg rek li nga xam ne yow moom nga bëgg wala moom nga xëy suba ngoon di say topp wala nga bëgg saa am ndam ba nëga ni ci biir nopp dan dan dan dan ko siy def waaye loolu kàttanu yàlla suñu borom képp koo xam ne eh, am am nga soxla yu mel noonu nga diis nga diis ko daan si de daan si def suñu taxawaay ba mu mat sëkk ba nga xam ne danga ko ko bëggee danga amee noonu te du loo xam ne day diire waaw loolu moom dama koy gën a leer laa nit ñi te li si yut timit ñi nga xam ne dañ may ñaanoote wàllum nopp na leen fulaak fayda di tax a jóg ndax eh, li may def du du du yëfi gone du loo xam ne tamit lu lu ñu def la rek ñu dindiwaat li tax lépp ko képp koo xam ne farata rek moo la tax a jóg soo ma woowee kàttan yàlla suñu borom ngi liggéeyal koo xam ne ay caaxaan moo la a jóg ñoom jurul nga may woo. man damay gis ni léegi xale jigéen ñi bari sax léegi dañuy rang sa buntu kër cool yu bari mooy maanaam xale góor jigéen ñi nga xamante ni maanaam dañuy bëgg góor bëgg koo xamante ni maanaam da leen di jàppale seen xol da ci nekk mais ku góor ke da leen di wor parce que léegi nga gis xale bu jigéen boo xam ne day am xaalis mu gis benn xale bu góor boo xam ne amul dara mais day bëgg nekk ak moom waaye xale bu góor bi intérêt lay toppee ak moom tey ñoom te ñoom toog di la sant di la gërëm maanaam mbégte bi nga xamante ni yow da koy am yow mbégte bi ngay am mooy da ngay toog jékki-jékki gis koo xamante ni maanaam maanaam yaa ko defal ba nga xam ne defal nga ko la mu bëgg tey mu yëkkati dara ñëw indiloo ko sa a jox liggéey bi di gën a am doole. waaw xale jigéen yooyu foofu foofu laa lay tontoo ñi gis ñi fiy ñëw dafa am benn sunguf boo xam ne moom laay joxe sunguf bi maam ñi xam ne euh, ñi si ëpp sax ñi xam ne danoo am jëkkër di sëy je ñu si bari dam dam dam leen koy jox waaw sunguf boobu nag irsa su su su sungu sungufu waaw laa ko tudde loo sa loo sa waay mu ne waaw moom moom moom laa koy joxe ñi ma koy jox dañ koy raxas seen kanam waaye ci kàttan yàlla suñu borom di diggante bi mu la koy joxee nga nga def ko euh, ci guddi gi incha allah rabbi loolu loo bëgg sa waare danga danga sa am soo gisee ñooñ nga fi gis nii ngi fiy ñëw te loolu rek lañ fay wut si waaw loolu moom xale yu jigéen yeek jeeg yi ñëpp si am damaa xamul nag man xale bu jigéen boobu mu ko jëkkër lan lay doy sunguf boobu waaye ñëpp laa ñëpp laa koy jox waaw ñëpp laa koy jox waaye kàttan yàlla borom moom sa jëkkër lu muy nay nay nay muy góor muy jigéen nag ni ma koy joxee jigéen laa koy joxee góor waaw ni mu koy joxee jigéen noonu laa koy joxee góor waaw képp man doon moo xam ngay sëyeeku seen waaw wala naar wala pooni lu mu si man doon lu ne sunguf boobu day doy dox te côté boobu waaw moom moom macha allah moo gaaw te ti boole di ñaar jigéen ñoo xam ne ñaar nit ñoo xam ne kenn nu ta jox sa morom te ci joxe lay dox waaw. te li nga xamante ne lëmbee na réew mi te saa ñu xëyee nit ñi di la si tàgg di la ci gërëm wàllum kayit wàllum ñaanu kayit ak wàllum set. sëñ Cheikh Ndiaye njëriñ njëriñ da cee mën ba kenn dootu ko lam-laamee sëñ Ndiaye njëriñ njëriñ ñi nga jot a seqal ci wàllum kit ba tax ñu tukki sëg yu ñu lay woo téléphone di la sant ak di la gërëm ak di yëkkati ay teranga di la ko jox fi nga jaar ak ñoom ci jafe-jafe ba tax nga dimbal leen ñu dem tukki yow boo toogee ba ñu dem ba yegg yow ba mbégte ngay gën a am waaw seen moom nekk na ci li nga xam ne euh, maa si sant yàlla suñu borom baax man li saxaar la may def waaw sa tur nga ma jox sa turu yaay ma xoolal la waaye yàlla suñu borom képp koo xam naa xoolal naa la incha allah rabi lam la xoolal danga si am lu la leer naññ naññ naññ naññ waaw te ku sum la xoolee tamit da nga xam ne borom xam-xam xoolal na la ko yàlla baal xoolal na la man defuma dara dara lu dul istixaar waaw incha allah rabi képp ku ma ko seetaan rek ci kàttan suñu borom say mbir naa si wan lu leer naññ beneen bi stop tamit bari nañ ñi nga xam ne ay nit ñi dañ may woo fu ne fii ba Europe suñ ma woowee eh, dan may wax seen soxla dan may seetloo par di ma woo su defee man dootuma leen seetalati ndax nit ki bu dee da bëgg mu mu mu mu xoolal la mu seetal la yow woo ko na ko seetal ma rek waaye bul ko wax sa soxla waaw man fi ñu bari dan may wax sa dan may wax soxla su defee man leen bu dee soxla bi nga wax loolu juru seet loolu loolu lu ni ñaan la xam nga ñaar yooyu bokkuñu dañ siy bàyyi xel bu baax a baax waaw bu dee da nga am loo xam ne xamoo ko da ngay woolu rek seetlu bu dee da nga bëgg a ñaan te yàlla suñu boroom nag nga xam li ngay ñaan la su boobaa da ngay da ngay wax sa soxla rek ngi ngi ngi ñaanal la waa incha allah rabbi képp koo xam ne defal naa la ko ci kàttanu yàlla suñu borom euh, suñ si ko suñu borom mën naa faj say aajo baneen bis soob tamit wàllum kayit maa ngi si ñaanal ñu baree baree bari waaw maa ngi ñaanal ñu bari waaw am ñoo xam ne ay dix ans de dan dan koy am ba ay vingt ans ngi may woo ma leen ñaanal te dañuy am ay kayit moo xam nga nekk Europe bëgg a jàll ba nga bëgg a jàll beneen pays moo xam nga nga bëgg a ñibbisiwaat sa dëkk ak fooy man di dem daal dama dama si ñaan te wàllum këyit dafa yaatu du këyit maam du pour nga nekk Europe bëgg a ñibbisi wala leneen leneen këyit tim li muy dox dafa bari moo xam ngay concours wala ngay examen baccalauréat looy man di def lu ne rek këyit yi wàllum këyit rek dañ la siy ñaanal moo xam nga ngay ngay li nga bëgg liggéey ti xeetu loo xam ne bureau wala signé lu mu si man doon ba si falu lépp ci wàllum këyit lay dox yooyu yëpp dañ siy ñaan waaw yor na si ay càngaay yoo xam ne ci kàttanu yàlla suñu borom képp kun ko jox yàlla suñu borom dana faj say aajo ba fa jaale sa lépp ci kàttanu yàlla suñu borom macha allah yéen a ko dégg numéro téléphone yaa ngi noonu yéen ñi nga xamante ni yéen a koy commentaire noonu suuf tamit te di ko laaj ba léegi yéen a ko gisaat noonu ci biir écran mu nekk 78 475 27 82 77 460 47 36 mais sëñ bi dafa am ay xeetu gàllaaj yoo xam ne dama ko gis sa wet ndomba yu lay kii pour nga tukki la wala ndomba yu lay aar wala ndomba yoo xam ne loolu laaj ñëkk bu jox waaw ndomba gi moom nekkutul ganti nit ñi gi mooy ndoom ak njare waaw nekkutul ganti nit ñi yàgg naa ka présenté mooy ndoom ak njare ndomba gi nag tu ubbeeku la ëpp lu muy dox ubbeeku waaw lépp looy xam ne da da nga see yóotu mu mu dëgër incha allah rabi soo ko amee da ndoom da si joti kàttan yàlla suñu borom lépp bépp liggéey booy man di def ak lépp loo xam ne maam da ab lay doon incha allah rabbi soo ko amee da eh, soo amee ndomba gi incha allah bi suñu borom dana la féexal loolu ba nga am sa ndam bana bis soob tamit ndomba day dox ci wàllum yoon incha allah rabbi soo ko takkee tamit yoon da nga da nga da nga mucc ci yoon waaw lool lépp ndomba gi da ciy dox même xeeti liggéey yu bon yi ndomba gi da ciy dox waaw ndomba gi loolu lay dox waaw incha allah rabbi képp eh, képp ko si jot rek eh, suñu borom dana gën a yomb la say mbir gi mooy ndomba ak njëre juróom-ñaari gaaw la mu amaat beneen ndomb goo xam ne dafa nekkaat ci wet gi ndomb goo xamante ne ñaari bopp la am xawma ñetti bopp mu nekk ndomb gu yemee ñetti ñetti gëlëm yi lu lu muy teg bii ndomb gu wuute la waaw bii ndomb gu wuute la kenn ku la liggéey dana këppwaati kaw wala mu faatu ndomb gi ci loolu lay dox képp ku la def lu bon dana dana ko wuutee ndomb soo déggee wuutee mooy comme ça fépp foo xam ne mbiri seytaan dafay nekk wala coow wala lu la bëgg a dugal xeet yàq-yàq yow doo ko fekk li mooy ndomb gu wuute même temps tamit maam day dox ci li nga xam ne euh, mooy xeeti ngànnaay pour nit yëkkati ngànnaay bëgg la kaa jam wala dóor comme xeet yooyu noonu loo loxaam du jug même mim xamandeel mooy robee lal nii ndomba gi soo ko takkoon du tàkk waaw ndomba gi ti yooyu lay dox mooy ndomba gi wuute incha allah rabbi tamit ku ko am tamit suñu borom mën na dimbali say mbir ba nga xam ne yooyu doo doo si gis benn doo dajeeg moom kàttanu yàlla dañuy dellu di gën a maan mbégte balaa temps bee jeex dafa am loo xamante ni tey moo lëmbee réew mi ci ñett fan yi mu nekk bës bu mag loo xamante ni doon nga ko wax ci ay diir mais teewul tam daal sa mboram xaw na la ci dimbali tuuti ba am nga loo xam ne jotoon nga ji ci wax ci na jii nii ci diggante artistes yi ku ci mel ne Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé mu ngi dëkk fii sa ginnaaw kër fii Ngaaka Blindé tey lëmbee na réew mi moom ak waax ak rubrique foofu moom am naa lu ndaw loo xamante ni sëñ bi dama la koy laaj yow ak Ngaaka Blindé yéen a bokk dëkk ci koñ bi fii taay Ngaaka Blindé taay dafa géejoo nii rek moom ko wala taay butéel yi nga koy xëppal biir këram wala nu fa demee. waaw xam nga Ngaaka euh, sama waa toom sama sama xarit la bi yépp bi muy génn di tukki rek déggante nan avant muy dem pay moom sama waa la sama lépp la waaye nag am na loo xam ne maanaam euh, mbir àdduna soo nekkee bu yàkkamte say mbir. waaw lépp looy man def maam na nga ko def ndànk te te ànd seeg dal waaw loolu lépp dama dama ko kay wax te lii muy def nii maanaam euh, concurrence bi muy def nii du si moroom du si moroomu gaa yi du si moroomu gaa yi moo leen moo leen man foofu moom jiitu na leen waaye lii muy def nii du njiglaayam baaxuti gàllaajam waaw te fi mu toll nii ne mun kaa xam waaye te kanam la kay gis waaw su ma soññee mu gën a teggi tànkam waaw te xam ne xale la te li mu bëgg man na kaa mën na kaa am nekku loo xam ne maam lu lu gën ci moom la waaw dama kay wax di kay waxati te xam naa incha allah rabbi dana dana dana dana ma dana ma dana ma dana ma déggal waaw. coow li nii bës beeg mbelelele yi di maanaam boo sa yoon daal mu arrêté maanaam bës beeg classe santé yeeg yooyu noonu parce que nekkul lu ko jig daal coow. concurrence bi muy def laa la wax bi muy def. bi mu def waaw moom ay coow yooyu par concurrence bi mu def nii maam mu mu mu bañ a doxtu yooyu ndax loolu baaxuti liggéeyam baaxuti gàllaajam du loolu moo koy dundal waaye li muy li mu liggéeyam moom macha allah mën na ko waaw moom xam na ma xam waaye comme li muy def nii man laa ko laa bëgg laa ko si bëgg a génne daal mu def liggéeyam rek en intérêt généralement mu mu def li mu gëm foofu laa waxee quoi. loolu xam nga nit su nekkee ci yoon day bañ a yàkkamti rek waaw xam na li olof njaay naan su dox jeexul waa si lu jeex waaw àdduna moom temp temp la lépp loo war a jox xalaat ku laali da ngay da da nga sa jot. waaw yàlla suñu borom moom rek la na defar na palam avant avant dem avant tey ñëw waaw kon nag fu mën di toll lu ne kenn ko ne fu waaye man di nekk na gëm sa bopp jàpp sa liggéey xam ne ku dul yàlla suñu borom nekku fi yàlla rek moo fi nekk mooy mooy joxe mooy xañe mooy nang mooy maye mooy dolli mooy def lépp ku dul suñu borom nekku fi nan gëm loolu di te jàmm waaw suñ ko defee rek incha allah rabbi kenn ko ne fa nga teg sa bët ak fa nga bëgg àgg yàlla suñu borom danan dan dan la fa àgg baneen bis soob tamit euh, wàllum dugg xalwa maa ngi koy def waaw fan yi maa si def ay ñaan yoo xam ne du passé diiru ñetti fan diiru juróom-ñaari fan loolu nag boo constaté li nga xam ne maam xeeti fal fal nit la waaw te ñaan yooyu si laa koy defee xeetu fal nit moo xam ngay politique wala leneen loo leneen loo bëgg daal ci àdduna bi incha allah rabbi su ma la ko defee yàlla suñu borom te kàttan yàlla suñu borom ak sama barke maam suñu daa rosan li ma si liggéey su ma la ko si liggéeyee yàlla suñu borom dana dana dana dana ko nangu waaw beneen bi si beneen bi si beneen bi si topp tamit ah, ñi nga xam ne dan may faral di woo duñ du ma jot suñ ma suñ ma woowee jot nu ma am nan may bàyyi li licence heure bu ma bàyyi li licence mu amee temps su ma ko liiree naa dinaa ko tontu waaw. temps yi fan yi ci ginnaaw coow li bari woon na biir assemblée nga ne coow li du mat juróomi fan coow la dana fay. ñu ci bari ne réew mi jàmm dootu fi am nga nag jàmm day am far force parce que man bis ma duggee xalwa su ma génnee rek la nga xamante ni mooy fay coow la danaa ko wax tadd na leer nañ te jamono ñu toll coow lu jugoon na biir assemblée léegi assemblée nee na tekk fay na maanaam foofu nga jot a jaar ci diggante bi nga ne jot nga ci dugg ci biir xalwa bi lan nga ci gis ba tax ne carrément ba nga jëf li nga jëf tey ji coow li ne mut ne fay ba kenn dootul dégg sax ñu wax waxu ensemble waaw coow coow jugoon na fay na waaye coow dana jugaat te coow liy jugaan mooy gën a raw coow yu fi jaaroon. rabi waaw ma la wax coow yi ma gis nii mooy gën a raw pop yu fi jaaroon te soo moytuwul deret dana si tuuru. waaw loolu beneen bi si topp tamit ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñu koy wax si na Ousmane Sonko mu sell mi maam na gën a euh, dimbalaat toogaayam gën a defaraat ginnaaw gën a toogaat. xam ne xam ne xam ne su yeexee rek maam dana dana dana ko dugal ci kàmb dana dana dana surux ndax gis naa Isaa maa gis ay pexe yoo xam ne bi su pexe yi su sottee la mu bëggoon du ko am te Isaa bi li mu bëgg daf ka da kaa war a am ndax man yéen naa ko te incha allah bi ci kàttanu yàlla suñu borom 2024 suñu fa àggee ak jàmm xanaa mu ñàkk dem waaye su fa demee réew mi te ay loxaam lay tegoo yéen ko dégg li nga xam ne sëñ bi wax na ko euh, sëñ Cheikh Ndiaye njëriñ njëriñ mi nga xam ne yàlla sama borom dimbali na ko may na ko xam-xam goo xamante ni képp ku jëflante ak moom kontaan mais sëñ Cheikh Ndiaye njëriñ njëriñ balaa ñoo tàggatoo dañuy jëlaat numéro téléphone bi joxe waat ko yéen ñi nga xam ne yéen a ko doon laaj mu nekk 78 475 27 82 77 di la ñaanalaat yàlla suñu borom may la jàmm ci mim réew lan ngay am leneen loo xamante da nga koy waxaat li jëmaat ci réew mi ak jàmm réew mi ak li nga xam ne moo di jànneekaar waaw beneen bi soob tamit sax nañu gën a doxal yoon di xool yoon xam ne lu waay lu waaye lu waay lu waaye atte fii rek ëllëg yow mal xiyaam da nga ko da nga ko attewaat ku lu nafsin saa yaxateen mawti bakkan bu ñam dund bu ne danga nga danga danga ñam dee waaw te lu waaye wax rek soo amee ñett fan guddi sa bàmmeel da nga xam ne la lépp dëgg la kon nag lu mu si man doon lu ne dañuy wax dëgg te yàlla tax macha allah yéen ko dégg yéen yi nga xamante ni yéen ko dégg kon seen seen njaay njëriñ njëriñ dañ sant beneen bis topp. Euh, maa ngi ko sama sama sama mbokk taal bi ak euh, ñi xam ne mooy dan may seetloo ci wàllum naar bi si bet bi waaw. dan si bet bi moom da nga ko lëmbee. waaw waaw dan fan yi ñu ngi ma si ñu ma si woo guddee bëccëg di ma di ma si xooloo ñoom ñëpp képp koo xam ne tamit da nga ma see xooloo. maanaam euh, soo mu dee xool par équipe bi na su si bari daanaka dafa may dafa day bari te ma du ma xam nu ma koy def léegi nan may nan nañu dugg ci application bi di capturer équipe yi ñu bëgg ma xool leen suñ pare ñi ma koy ñi ma koy yónnee whatsapp bu dee gagnant bi la dama koy xool bu dee score stack bi la dama da da dama koy xool waaye lépp lu may xoora nan nan ma koy yónnee nan ma ko yónnee incha allah rabi heure bu ma métta féex rek dina dinaa mën a xoola bam bam bam leer naañi kàttanu yàlla suñu borom alhamdulilah yéen ko dégg noonu loolu la ñuy amat ci li nga xamante ni mooy dernier kàddu yi kon léegi sëñ Ndiaye Ndiaye njëre njëre ñu bàyyi la nga tàggatoo yéen ñi nga xamante ni yéen a ñu doon suivre bu baax a baax yéen ñi nga xamante yéen a ñuy seetaan ñi nga xam ne yéen bëgg sa chaque jour ñu leen koy wërale di leen ko indil na saa bu waxee ngeen jëlee ci moom xam-xam sa sëñ kurus gi nga téye moom xam naa ni moom ay baati ñoo ci nekk waaye ñu bàyyi la rek dernier kàddu yi waaw di leen santaat baax di leen gërëm di leen baal àq di coono di leen masaw coono baax a baax a baax waaw di tàmbale woon fi ma tijjee rek di tëjeewaat foofa di ñaan laate suñu yaakaar te ëllëg di euh, sin mm, Cheikh Mountakha Mbacké Bassirou di koy ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak weer di ñaan laat ki nga xam ne mooy sama buntu si Ndaarax sa Ndiaye di si Abdou Khadir di koy ñaan mu yàgg fi lool ànd ak wér waaw laat ki nga xam ne moo fi jugoo moo fi jugee démb uji suñu borom te muy Cheikh Abdourahmane Mbacké bu Daaru Musi suñu Abdou Khoudous di koy ñaanal yàlla suñu borom yokk ay leeram taas ñu ti barkeem waaw nit ku ku baax la woon boroom xam-xam la woon ku ku ku fonkoon ay daara bari woon i daara waaw manqué ñaan laan mu yàgg mu suñu boroom yërëm ko xaar ko àjjana firdawsi waaw di leen ziyaar yee ñëpp di ñaanal Sénégal jaam gën fee sax jaam gën fee yàgg di leen yaa ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu. alhamdulilah yéen ko dégg. sëñ bi tàggatoo na waaye ñun tamit ñoo ngay tàggatoo di sant ñi nga xamante ni yéen ñu di topp chaque jour di ñu suivre ci li nga xamante mooy seen faj sa jàngoro. ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw